al amalu lid diin lil jami liggéeyal diine farata ci ñëpp ñu ci ànd ak yéen waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi boroom xam-xam yi ne iza lam tastati nafa ixwaanika fala tadurruhum waay waay yow mbokk julit bi boo mënatul jëriñ say mbokk bu leen lor say mbokk julit mënatoo leen dimbali mënatoo leen jëriñ waay waay bu leen lor lool nag ñoom boroom xam-xam yooyu ñu ngi koy jëlee ci waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam gim naan kuffa sharraka anin naas fa innaha sadaqa fekk gi ngay fegal nit ñi ñàkkalee na lor yonent bi nee na loolu yaa ngi ciy saraxe bañ a lor kenn ci say cër ci sa làmmiñ ci say lépp bañ a lor nit ñi yonent bi alayhi salaatu salaam nee na loolu sarax la gis nga xeetu sarax yi ndeke ñu bari ci ñun jàppoon nañ ne joxe alal sarax la dëgg la joxe lekk sarax la joxe naan sarax la dimbali nit sarax na fekk luy lore ci yoon nga dindi ko sarax la waaye ndeke yow ci sa bopp boo téyee lor yi nga xam ne mu ngi nekk ci yow loroo kenn yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na soo lorul kenn rek yaa ngi saraxe sallallahu alayhi wa sallam loolu yonent baa ngi ko def mu ngi ko wax ndax jullit bi xam ne <coughs> alhamdulilah xeetu sarax yi dafa bari mu bañ a jàpp rek ne génne alal loolu dong moom mooy sarax déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk kuffa sharraka anin naas fa innaha sadaqa minka ala lor yi nga téye ci sa bopp loroo kenn alhamdulillah yonent bi nee na sallallahu alayhi wa nee na loolu sarax la goo xam ne yaa ngi koy saraxeel sa bopp ñàkk lor nit ñi ndeke ki nga xam ne mu ngi garde tranquillité téye boppam lorul kenn lorul góor lorul jigéen lorul kenn ci li ko wër ci ñi ko wër yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kooku sax mi ngi saraxe gis ngeen xeetu sarax mbokk jullit yi lislaam ni mu amee importance mbokk yi yaxya ibnu muaz rahimahullah nee na la yakun xazzul mumin minka salaasan yow jullit fexeel sa cër nekk ñetti mbir sa cër cib jullit na nekk ñett fay lam tanfaahu fala tadru soo dimbali jullit bul ko soo ko mënul kontaanloo bul ko merloo boo ko mënul tàgg bul ko ŋàññ allahu akbar ndeke jullit bi ñett yi rekk nga ko yoreel soo ko mënul jëriñ bul ko lor soo ko mënul tagg bul ko xas soo ko mënul kontaanloo bul ko merloo yépp ci xeeti jaamu yàlla yi la bokk ñàkk a lor jullit sarax la koo xam ne ki nga xam ne moom lorul kenn ci ay loxoom ci tànkam ci làmmiñam lorul kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waa jooju moo ngi saraxe kon diine lislaam mooy diine ji nga xam ne doomu aadama bi ne patt sax téye boppam rek day am tiyaaba ndax lorul kenn ñàkk lor nit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yaa ngi ciy saraxe su ko defee incha allah mbokk yi yal na yàlla fay leen ci liggéey bi nga xam ne yeneen ci jàpp guddeeg bëccëg yeneen ciy dugal seen alal ak seen mën-mën ak seen lépp yal na yàlla taxawu leen sàmm leen fay leen ñu ngi leen di wax jazakumullahu xeyran